inspecteur général de police wax la tamit li li ñu namm ci dëkk bi ak euh, yëngu-yëngu yi fi am fan yi ci mbiru insécurité tamit loolu moo ko yëkkati moo ko gën a yëkkati moo tax mu ñëw fi ñu ngi jégalu wax ci kàddu bi. sëriñ bi donc lay ziare di la nuyu bu la sant ci audience bi audience bi nga xam ne daanaka waajaluñ ko te xam nañu aussi sa jot bariwul. Euh, euh, dañoo jëloon décision ñëw Touba pour mun a lu ñuy woowee visite de travail ñëw gis éléments yi commissariat yi fi nekk euh, gis nu ñuy liggéeyee gis jafe-jafe yoo xam ne moom la ñu jànkoonteel ak li nga xam ne moom lañu war a def pour améliorer liggéey bi. loolu nag bokk na si suñu lu ñu woowee si tubaab suñu agenda waaye nag aussi ñu ngi lay euh, remercier si sa disponibilité parce que biñ la ko waxee ak léegi yàggul te xam nañ ne amoo jot euh, nga am jël décision recevoir ñu ngi la si gërëm bu baax a baax di la si sant donc di gërëm aussi xalif général de des des des di ko sant bu baax di ko ñaanal aussi moom tamit mu yàgg fi te wër donc di ñaanal kilifa yi fu nekk yëpp fii si Touba. kilifa diine yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàgg fi te wér donc di leen feddale aussi suñu coloré di leen feddale aussi suñu suñu soutien ci wàll bi nga xam ne moom la suñu liggéey euh, fi lañu féete ànd nag ak ñu nga xam ne ñoom ñooy suñu ay collaborateurs ñu nekk si commissariat de police yi fi nekk li fi manqué ci police rek mooy ñi ñu bëre rouge yi mooy gémi mais daanaka comme ñu ngi fi rek daanaka gémi mu ngi fi donc ñu ngi leen di sant bu baax di la gërëm bu baax donc visite nag comme ni ma ko waxee si njël benn visite de travail ñëw xool dëkk bi ni ni yi fu ñu toll si wàllu liggéey bi si wàllu sécurisation bi comme ni ko commissaire waxee léegi am na loo xam ne nemmeeku nañ ko fan yële passé surtout fii si Touba côté marché Ocass bi ak yenn cas yoo xam ne aussi nemmeeku nañ ko si côté Mbacké donc yooyu nag defa laaj euh, ay dispositifs yu adapté yoo xam ne il faut ñu xoolaat suñu dispositif gën ko renforcer léegi nag dama ñëwoon si anam boobu laa ñëwoon pour jéem a waxtaan ak samay collaborateurs ngir Touba dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la si wàll yëpp donc comme dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la ci gis-gisu président de la république si gis-gisu ñëpp ministre de l'intérieur directeur général de la police. ñi nga xam man maa leen représenté tey ñu ñëw fi nag ngir euh, mën a euh, saytu liggéey fi renforcer li nga xam ne moom lañ fi amoon ndax loolu gëj fi am wala mu bañ fi amati ñu liggéey si baax a baax Touba ak Mbacké lu yàggul rek renforcer nañu dispositif euh, humain bi mooy effectif yi commissariat yi fi nekk yi Mbacké ak Ndamatu ak arrondissement yi renforcer nañ ko te gouvernement bi aussi par l' intermédiaire ministre de l' intérieur aussi dina fi tabax yeneen commissariat de police ay projet yoo xam ne ñett commissariat war nañ koy tabaxaat euh, am na ministre de l' intérieur gouvernement Sénégal aussi am na yéene renforcer dispositif groupement mobile d' intervention bi donc si loolu aussi autorité bi dañ ma yóbbante woon pour ñu ñaan leen pour ñu mën a élargir fi nga xam ne moom la ñu nekk léegi xam naa ne loolu aussi ab liggéey la parce que daanaka foofu dañu ko dañu ko abaloon pour euh, kii bi euh, màggal bi waaye nag Touba il faut mu am dispositif GMI parce que dañ ko soxla ci wàll yëpp ci wàllu sécurisation ak wàllu sëriñ si yaa ngi fi dañ ko soxla donc loolu bu ñu mun a am site foo xam ne dañu mun a am foo xam ne day fii si Touba dañuy am fu ñu mun a am foo xam ne GMI dafa mun a nekk ñu mun a renforcer dispositif moo gënal. ministre de l'intérieur moo gën a directeur genre police loolu ñëw yokku si nag ñett commissariat yi nga xam ne moom la état bi nara a tabax fii si fii si Touba pour renforcer euh, sécurité bi dama ñëw nag pour ziare la dama ñëw ziare donc waa Touba dama ñëw aussi pour lancer ay opération yoo xam ne opération coup de poing lañ koy tuddee yoo xam ne dañ koy lancer pour euh, bàyyi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fi ci dëkk bi diggante Mbacke ak Touba ñoom ñu continuer liggéey boobu ñoom ñooy wéyal liggéey boobu de di liggéey boo xam ne warul taxaw sant laa leen sant naa leen ñu boole seen doole ñoom ñëpp waa Mbacke ak waa Touba ngir sécurisation ñu mun ko renforcer doole ko si ak GMI bi nga xam ne moom la ñu nar a renforcer li nga xam ne moom la la ñaanoon léegi autorité yi ñaan la léegi ñu am site boo xam ne dinañ mun a bàyyi GMI bi si Touba ñu renforcer ko donc loolu moo doon suñu tànk sëriñ bi. di la ziyaara di la sant di la xamal ne aussi souci sécurité euh, souci sécurité Touba souci état bi yëpp la souci président la république la souci ministre de l'intérieur la souci directeur général police la souci ñi nga xam ne ñun ñu fi toog yëpp suñu souci la bu doon suñu sago dañuy yeewu fii te dara du fi am agression du am insécurité du am braquage du am dara du am loolu moo ñu gënal te ci lañuy liggéey aussi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne ñu ngi si tànk boobu donc ñoom la ñuy jéem a wéyal bu soobee yàlla di leen si ñaan di leen si sàkku ñaan aussi parce que loolu aussi pour mu mën a sotti il faut ñaan xalif général des mourides duggu si il faut seen ñaan yéen tamit yow euh, sëriñ bi porte parole il faut aussi sa ñaan aussi dugg si yaakaar nañ si bu baax a baax ngir li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne moom nañ ko am si sécurité cent pour cent moom la ñu bëgg ci Touba ndax ñu mën ko am sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant donc di la ñaanal yàlla yow tamit nga yàgg fi te wér jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay delloo am nuyoo ak mboolem ñi nga àndal ñëpp di yóbbante nuyoo ci sa kilifa yi nga xam ne ñoo la fi yabal tàmbaleeku ci ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ba àgg ci président Macky Sall di la dalal jàmm di rafetlu dikki gi ndax ni nga ko waxee Euh, fekkoon na jamono yëpp suñu xel ak suñu xalaat nekkoon ci xalaatu nu ñuy defee jéego ngir waxtaan wàllu sécurité bi kon nag bu yàlla defee mu nekk seen xalaat ngay ñëw gàttandu ko ngir xam jamono yëpp ci dëkk bi li nga xam ne mu ngi fii xew muy lu tiis ndax sécurité moom mooy li jiitu lépp ndax fal ya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa amanuhu min xawf bala ngaa mën a jaamu yàlla sax dangay am jàmm amuk dal kon sécurité moo jiitu lépp balaa nit a tala lekk wala mu tala naan wala mu tala liggéey sax faaw jàmm dafa ne kon nag ñu leen di sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy defal nit ñi wuutu leen ci ngir bëgg nit ñi am jàmm kon yéen ñi nga xam ne yéen a yor sécurité képp koo xam ne xam nga ni àdduna doxe rek lu leen di gën a dëgëral lay wax ak lu leen di gën a jàppale seenub liggéey waaye seenub liggéey kenn waru ko woyofal ndax bu yàqoo rek li ñuy wax fawda mooy anarchie mooy am ci am réew te loolu baaxu ci genn fànn kon ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, wàllu sécurité bi nag Touba day dëkk bu mag boo xam ne luñ ko bàyyi xel rek waris na koo dolli ndax waxtu wu ne damay wax ne dañuy bëgg jàpp aspect diine bi rek jàpp ko dëkkub diine wala village bu yàgg ngir ni bindoo ba tax yu bari di fi manqué looloo ko indi waaye buñ ko dee natt rek nañ xool ginnaaw bu Ndakaaru jàll mooy dëkk bi gën mag Sénégal di ñaareelu dëkk kon lépp lu ñuy xayma di ko natt ci wàllu sécurité rek foofu lañ ko war a natte waaye bu dul loolu rek eh, ni ñu koy calculer day daal di manqué. te xam ngeen ne euh, Touba day dëkk boo xam ne ni ngeen ko waxee dafa spécial spécial gay li ci jiitu mooy Serigne Touba moo fekk fu dara nekkut mu jaayante ñaan suñ borom ba suñ borom may ko fay ko lii mu ko fay ñaanam googu nangu nag moo waral dëkk bi sax dal ak jàmm ji am fi waaye bu toonu loolu kon saa su xëyee danga gis nit ko faatu ngir dëkk bindoo ndax Touba téeméer at yi du bari te gis ngeen ni mu rëy te fu ne nit dafa bàyyi ko ñëw bari na ci ay dëkk yoo xam ne ña fa yeesoon ñoo làqatu ñëw fi wala ñu bëggoon raw wala ñu bëggoon a mucc wala ña xajatu fañ dëkk loolu nag dëkk boo ma sa gis mu sosoon ci àdduna rek dëkk lay doon boo xam ne euh, dëkk bu ñàkk jàmm lay doon Tuubaa nag suñu borom mosoon na ko ci loolu ngir ñaanu sëriñ bi euh, ci biir lool nag moo tax ci jamono yi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci la xam ne dëkk bi dem na ba laaj gendarmerie ci la fi indi woon brigade spéciale bi ngir xam ne civil mënta lijjante moroom civilam addunay dox ba Serigne Saliou Mbacké moom ci xalaatam xam ne police mënta ñàkk ci dëkk bi mu indi ko fi kon loola di dox ba na gën a ginnaaw bi maa ngi fàttaliku ci 2013 Cheikh Sidi Moustapha mi fi nekkoon yónni woon ma ci président Macky Sall ngir yeneen di yitte ci biir loolu laa ko waxaale woon escadron bii fi nekk ngir ñu tabax ko fi ci la joxe ndigal ci sama kanam booba général Guèye Faye moo fi nekk ba yàlla def loolu liggéey ba àgg bañ ubbi ko commissariat yi kon waris na ko gën a dolliwaat ngir mu gën a jege nit ñi gën a jege nit te ñoom itam ñu gën a farlu ci seen liggéey ndax farlu gi mooy fexe ba ñi ñuy lijjanti bañ leen a yàpp loolu dara jiitu ko ci liggéey bi te jàmbar yi xaw naa bari ci dëkk bi seen liggéey ñoom kon ñoom itam nañ xam li leen indi ci dëkk bi xam li leen fi tax a jug ndax nit bu fekkee yaa ko war a àtte war koo lijjanti boo fexee ba ak xeebe lool ak yebe dox sa liggéey moom rek boobaa na nga ko war a lijjanti loolu te loolu lépp itam bokk na ci li nga xam ne baaxul ci am réew kon ñoom itam faaw ñu ñaax leen soññu leen ngir xam ne dëkk bi day dëkku bu spécial. waaye bu loolu jàllee itam ñi fii ñëw dafa bari te li tax bu fi ñàkk jàmm amee muy metti mooy dëkk bi bariwut usine li ci ëpp commerce la moo tax li ci ëpp boo ko seetloo te commerçant yi xam ngeen niñ baaxoo li ci ëpp seen marché seen àll seen bitig la ne kon bu ñu dajjee benn bitig rek day daal di metti daanaka da nga gis koo xam ne euh, dalay wax ne bañ dajjee sama bitig deseetuma dara ndax loolu liggéey commerce moo bindoo noonu te commerce moo gën a bari ci dëkk kon foofu fu mel ne marché Ocass bokk na ci barab yi ñu war a gën a sécuriser waaye yeneen dëkk barab yi ci yi gën a sori yooyu itam ndax am na ci barab yoo xam ne euh, bu fa dara xewee boo wootee ba la ñu agsi daanaka daana fekk ñu rëcc te ñi taxaw ci bitti duggukaayu dëkk bi it mën naa bàyyi xel ndax boo koy seet li ëpp ci li xew ci dëkk bi ñu koy def dëkkuñ fi. dañuy jóge ci biti ñëw def ko bu ñu noppee dawaat kon loolu itam mën naa gën a bàyyi xel loolu daal mooy yi nga xam ne néew nañ buñ leen gisee danañ leen ci soññ ngir xam ne am ngeen ci yitte ak euh, taxawaay ak yi nga xam ne fas ngeen ko fi yéene def ren waaye nag ñoo xam ne rëyaayu dëkk bi moo toll noonu kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm di la ñaanal yow itam mission bi nga xam ne. Euh, say kilifa yaakaar nañ ko ba teg la fi ngir bëgg jàmm am te ñi la xam ñëpp it am ci yaakaar ngir sa liggéey yàlla na la ci yàlla defal ndam defal la ci tawféex defal la ci liñ ci séentu ci yow nga def ci lu ko ëpp ñu ngi sant ñi nga xam ne tam ñoo la fi nekkal ci dëkk bi di commissaire Sarr mi nga xam ne mooy itam yàggu fi mooy itam di ko santu bu ca ci taxawaayam di gërëm itam commissaire Thioubane ak yeneen commissaires yi fi nekk yëpp. ku ci ci liggéey bi nga xam yéen ko te di ko defal nit ñi ndax yéen seen liggéey bi dafa day liggéey boo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbéer gi rek nit ñi ngeen di liggéeyal kon nit ñi itam faw ñu leen di dimbale ci seen liggéey ngir xam ne ñoo leen fi bàyyi ndax bu ngeen nekkee ci naaj wi ñoom ñu nekk ci kër gi euh, loolu seen jàmm leen fi bàyyi ñoom itam buñ ko déggee noonu rek ànd bi di daal di yomb. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu.